Euh, do ñu gis ne tey euh, Macky Sall dafa defaat beneen couvre-feu en vingt et une heures ñëpp tëddi ñu gis gars yi tëddi la moo tax tëddi non man moom dèjà moom tëdd kër gi rek. damaa taxaw si kër gi. waaw ah. ah, léegi nan nga gisee couvre-feu bi. moom arrangé nañ trop quoi parce que les saa yi nga toog ak sa famille nii nekk ak ñoom ensemble xam nga naan ba yenn heures yi ngeen tëdd. par rapport ak yeneen situation yoo xam ne da ngay dox bay 23h 1 matin matin ngay jàppante ak yenn situation si mbedd yi. gars yi war a gars yi am liggéey guddi léegi yow ba xam xalaat nga leen wala. Ah, liggéey guddi bi moom ñooñu dañ leen war a jox autorisation quoi si yoon mooy tax réew mi mën a dox quoi mais heure bi moom heure tëdd la benn heure baax na. léegi yow lan lan ngay conseiller euh, sa moroom yi comme jeune comme yow. waaw ah, ñi nga xamante ne ay jeunes lañ comme man moins de 18 ans ñooñu moom dañoo war a a tëdd mais ñi nga xam xamante ne ay 22 ans jëm ci kaw yoon te ñu am liggéey ñooñu mën nañ leen libérer ñu dem liggéey quoi mais nañu xool seen yi rek ba pare. Macky Sall il est parce que dafa war a une semaine dañuy programmé moom c'est pas le président de la République du Sénégal le président France mooy président Sénégal lu mu lu mu président France wax loolu lay def loolu c'est pas normal sedd bi funu jëm ñëpp seen kër yu dem moo woon a jël ay responsable yu bu baax Macky Sall si gouvernement bi ils sont zéro ils sont nuls la moo tax euh, tëddiwoo ba léegi nii ak couvre-feu bi. man damay tëddi quand même je respecte je respecte le loi mais quand même war xool bagaasam Macky Sall il est zéro. ñu gis ne waa HLM e ñu ngi taal ay pneu di kii lam léegi lan la nga gisee loolu. man man boole sama sago ba ma defee couvre-feu boobu waxuma HLM e bu diggante Sénégal Ndar Dakar Pikine Fouta lépp taal dëkk bi ne France moomul réew mi. wendi na li la may tëddi Macky Sall lu mu fi def mooy lool fii dëkk bi kenn mënu fi ñun ay élève lañ ay jeunes lañ dañuy jàng cours soir 23h ba 22h la ñuy wàcc léegi mënoo jàngi mënoo jàng corona bi corona man gëw ma ni corona am na fi koo fi gis corona la Macky Sall day jé day jé suñu ñun ñëpp loolu dafa doy lu président France di def loolu lu président France ñun amuñu président. da ngeen a jàpp ni kon Macky Sall lu mu def rek président France moo ko ko dig. moo moo ma digal kay coalition buñ buñ boole la ñoom ñun dunduñu lool ñun ñun xamuñu lii yaa ngi xoolal dëkk bi dëkk bi dëkk bi changé na ñun xamuñu lii xamuñu li Macky Sall daal na xoolaat boobam mu xoolaatee mu. lan ngay conseiller jeunes jeunes yi comme yow. jeunes yi ñu génn mobiliser wu ñun ñëpp ñu xeex ko taal ay puna def kon asalem taal dëkk bi sax la ñu war a taal dëkk bi yëpp la ñu war a taal. kon dëkk bi na metti dëgg bi waaw mu metti mu metti benn yoon instant lii rek moo gën a metti loolu te vingt et moo gën a metti loolu. ñun kay ñu ngi suñu buntu kër wax dëgg fa yàlla wante tëju bi daa metti lu ñu tëdd atum ren ji dafa metti bu police yi ñëwee nan ngeen def léegi. ah xanaa ñu dugg ci biir kër gi rek xam ne luwaa mais neexuñu tamit wax dëgg fa ah, léegi euh, couvre vingt et lan nga gis loolu lan ak sa xalaat lan la. ah ñu nangu ko rek comme li ma la wax rek ñu nangu ko rek mais ñu waaw ak pare ñu respecté yit liñ ñu wax rek di raxasu ba set di dakk ci masque yi rek di def comme li li ñu sant rek pour yàlla dimbali ñu ci feebar bi mais dara neexuñu ci moom 21 heures bi moom wax dëgg fa yàlla neexuñu ndax man maa ngi ni damay jaay heure bi may waaji jaay ci laa laal li xam nga loolu tamit neexul ah dafa metti mais nan nga nan nga gisee euh, ñu ne Thiès ak Dakar léegi la ñuy tëj ba pare élèves yaa ngi jàngi rassemblement di am si classe ba pare ñu ne vingt et une heures couvre-feu lan nga gisee loolu. ah metti rek metti rek ndax ñuy voyager di dem di ñëw suñ leen arrêté man moom sama doom dinaa ko génne man moom comme tëj nañ yoon yi def couvre fa ku bàyyi sa doom lay ñëw yaa ko xam du noonu man sama doom dootul jàngeeti dama koy génne. moo tax takkoo masque. ah, ah takkuma masque de. ndax man gëmatuma ko sax man dañ waxante dëgg rek gëmatuma ko gëmatuma ko moom wax dëgg fa yàlla gëmatuma ko. ah du ma tëdd kañ ndax kenn mënul tëdd heure bii tëdd heure bii moom kenn du ko def moom xanaa dañuy toog rek di xoole ba heure du tëdd jot ñu tëdd. léegi bu la policier yi ah su ma fekk ma daw dugg sama biir kër rek ma da dugg sama biir rek. noonu da ngay xaar policiers yi ñëw nga daw. waaw yi ñëw wala ma xam ne policier du ñëw. policiers yi ñoom da dinañ masqué wu de ñoom kenn du leen xam dañuy jékki-jékki rek taxaw sa. ñu mën di doon rek su ñu ñëwee fekk ma fi. yow maam nan nga gisee bi ak lan lan mooy saxal. metti rek metti rek sa sa boo xëyee ñu ne couvre am na am na am na te gisoo feebar goo feebar ñu ñuy di ñu tëj ci kër yi rek la ñu nekk dunde waa loolu rek la ñu dundee ba pare ñu ngi naan couvre-feu ba pare di bàyyi élèves yi di jàngi classe bu nekk dina am plus de ay cent élèves et loolu lan lan mooy sa xalaat. benn xale warul jàngi dañoo war a toog suñu kër ba feebar bu jeex feebar bu jeexee ñu door a jàngi dañoo sonn si couvre-feu bi dañoo sonn talutu ñu dem fenn talu ñu liggéey talu ñu def dara dañoo sonn. non tëdd kay dinañ ko def sax mais mënu ñaax mais dañu reer dañ jënd si woon gis nga yaa gën a xam boobu ba ñu ngi fiy taxaw. ba ñu léegi la ñu wàcc mais tam pour ñu dina reer sax kii mooy yëpp nañ xamuñu fi ñuy jëndee reer instant nii moo tax dañuy jéem a wër rek xool waaw nu nu muy demee nag pour ñu am nag mooy loolu nu ñu reeree tam mais duñ ñëw rek tëdd nii Macky Sall dafa war a yokkaat affaire yi affaire yi lu mu deedee sa war nañoo yóbbu ba minuit lu mu deedee sa ñu yóbbu ko ba minuit ndax da doone nit day wàcc ñëw tëdd yaa ngi dégg ñëw tëdd si ba ba booru ay vingt et nga dem tëdd ji loolu dafa jaaduwul yaa ngi nii ñun reer sax ay topp la ñuy añee waaye di ko reeree comme nii yaa ngi géegi mooy loolu xool nu mu demee nii ah. tey boo doon jëndi la nooy def. nu may def xanaa laa def lu dul daw waaw da ngay daw mooy loolu noo def leen lu daw tamit mooy loolu. ah da ngay bañ ñu dóor ak yooyu noonu tam ak ku lay toroxal ak yooyu noonu xam nga mun nañoo taxaw fii ñun ñëpp ay jeunes lañ taxaw xeex ak ñoom yaa ngi dégg xeex ak ñoom mais duñ ko def waaw ñu dañuy taxaw len la ñuy def dañuy taxaw waxtaan ak ñoom naaj si kii man bu ñu ma jàppee tamit damay wax ak ñoom xool nu ma ñibbee bu ñu ma bàyyi ma ñibbi ma ñibbi suñu ma bàyyi ma ñibbi tam bu ñu ma a yóbbu ñu yóbbu ma. da ngay conseillé sa waaw maanaam tamit ñu a jënd reer rek comme yaa ma gën a xam xool ni ñu tëddee ndax tamit loolu ndax ñun ay citoyen lañ ñun ñëpp ñu Macky Sall bu fi ñoo fi fekk yaa ngi dégg mais tam duñu xoolee tam ñu ñuy dóor duñu toroxal loolu duñu def yenn yi xam la ñuy def dañuy jéem a xool nuñ tëri jiyee waaw mais buñ bu ma sayoon na dañ koy yokk nag waaw mais heure bi du heure ku du heure boo xamante ne waaw dañ naan ñun dañuy tëddi jee waaw ñu gën ko yokkaat bu dee minuit match moom waaw gis ne waa HLM woote nañ léegi ne ñu ngi taal ay pono léegi lan lan nga gis si loolu yëpp. waaw mais waa HLM tamit xëy na tamit dañoo am lu leen metti rek moo tax ñuy taal pono mais du dara tamit ay citoyen la rek am lu leen metti mais xëy na tam ñun mënoon nañ ko def fii taal pono comme ñëpp yaa ngi dégg mais defuñu ko mais tamit ñun ay jeunes lañ yaa ngi dégg liggéey moo ñu kii dañuy liggéey wala lan lañ bëgg ñu toog suñu kër ñu ñuy jox lekk wala ñuy jox naan même boo ñu joxee añ bu ñuy añ sax tamit teewul tamit munoo ñoo jox loo xamante ne bu dee tuqaat lañ sax wala dara cigarette bu ñu tox munoo ñu koo jox yaa ngi dégg joxuñu ñu ko joxuñu loo xamante ne tam bu ñu yeewoo dañ siy ndékki wala dañ siy añ yaa ngi dara tamit munoo booy joxe ceeb joxe diwlin joxe dara mais joxe woo loo xamante ne pain boo xamante ne ñun dañ koy lekk joxe woo ko joxe woo meew joxe woo dara yaa ngi dégg kon mënuñu tëdduloo tam di ñu wax yenn wax yoo xamante ne raisonnable yenewul maanaa quoi waaw mooy loolu ñun yoruñu benn kii boo xamante ne bu dee amoo moyen boo xamante ne mënoo jox askan bi yaa ngi dégg ñu ñu ñu ñu dund ko mais kon bu fi wax ay waxu couvre fa ay heure bi ngay tëdd wala heure bi ngay tëdd yaa ngi mais mais minuit masu moom man mun naa xaar d'accord nag quoi. càmbar yow yaa ngi ñu ngi gis ni couvre fa yaa ngi si fenêtre di xool policiers wala nu fa demee. ah noonu la fa demee sax ndax damay bañ tooñ loi. yow euh, ñu ne euh, couvre fa vingt et une heures dekk laa beneen fa bu bees nan nga gisee loolu. dama ne ay deuxième vague. kon xanaa addinay vague mooy am naata géej gi boo ko noonu topp si vague yi du jeex de. lu leer laa la wax géej moom vaagam du jeex ko xëy na lii war na mën a jeex daal maanaam. léegi yow nan nga gisee euh, waa HLM ñu ngi taal pono ak yeneen yeneen yeneen euh, gars yi di taal pono léegi yow lan lan nga xalaatee loolu. mais gars yi ñoo sonn rek président yi moo teg gars yi fitna rek te waru mën a demee noonu. fii Euh, pourquoi pourquoi pas yow nga gis ne élèves yi ñu ngi jàngi euh, te classe bu nekk day def ay plus de cent et quelques ñoom ñu ñoom mu préféré tëj euh, région Dakar ak Thiès na gis. si loolu lañu war a wax nag ndax ñu ngi tijji lépp ak élèves yi di jàng ñëpp di jàng te mbër yi tamit dañoo am seen liggéey war ko liggéey ñu tëj làmb ji nii defuñu dara raasiruñu dara champion yi bañ jëlee avance ba léegi amul kenn ku leen ñëw dimbali ndax ñoom lu boot seen ginnaaw dafa bari bari sëñ Fallou. nañ gëstu ñu seen ginnaaw gëstu làmb ji ubbi làmb ji ñu bëre bari sëñ Fall dafa jot mu ngi nii fi ñu jaar yoon la bari sëñ la dañuy yox jëli ko ba tooñ nag moo tax nekk suñ taati fenêtre di wax mais yéen ñii sax nekkoo leen si yoon nar ko lañ wax ngeen topp seen caméra yi booy topp leen nii ngeen wër. ay homme de presse de presse en cinq carte. suñu carte lii wane na ko. ah kon sëñ Fallou. Euh, léegi lan ngay conseillé sa moromu jeunes yi comme. sama moromu jeunes yi ah ñu gëm yàlla rek ndax lii metti na trop bitig yëpp tëj nañ léegi boo amul woon looy reeree nooy def wala su ma ko jënd woon nu may def lu ma la bëgg wax daal gars yi nañ de bari sëñ Fallou. ah métti rek ndax ñun dañoo njaboot te dañuy yëngu ci wàllum jaay bu ñu ko feu bi bu ñu ko defee 9h mais day métti si ñun parce que nit tam amul lu dul njabootam. parce que nit tam amul lu dul goxam parce que fii Sénégal métti na métti goo xam ne nii kenn mënu comprendre liggéey amul te ñun ñoo ngi daan suñu doole te yàlla rek a tax sàcc ñu fen ñu mooy ñu yàlla ñu ngi toog di jàppale suñu borom kër ak seen njaboot mais loolu rek am nañ lu ñu métti trop mais mënuñu ci dara. léegi yow euh, lan ngay wax euh, Macky Sall. Macky Sall nañ jàppale rek te xam ne réew mi réewu ñëpp la mais dafa doon suñu kilifa rek ñu wax ci ñu wax ci ñoom kàddu yoo xam ne nii. duñ ko duñ ko dépassé daal ci dara te xam ne Macky Sall suñu kilifa la daal couvre bi tamit bu ko mënoon bàyyi tamit am na ñoo xam seen programme yu bëri dafa yàqu nga baal ma nag ci kàddu bi. mais ak euh, yi bu ñu gisee nit ñi di dóore yow lan lan lan lan nga xalaat ci loolu. non dóor yi moom du yoon yi moom du yoon mun nañu wax ak nit ñi rek mais dóor yi du yoon moom. dóor moom du yoon parce que tamit dóor moom Macky Sall diggalu ko policiers yi ñuy def mais am na ñoo xam ne nag dañuy dóore mais Sénégal moom koo dóor day fayu man sama kalaat bi boo ma dóoree damay fayu. non man tëdd naa échange maa ngi sa mbundu gaale. gaale bu la fi buum yi fekkee est-ce xam ne yaa ngi sa bundu gaale wala. non duñu am compréhension boobu mais bu ma leen gisee ñuy ñëw rek damay damay dem dugg. Ah, yow léegi yow lan nga lan nga xalaat si couvre-feu bi nii. Ah, couvre-feu bi pour man de moom jaru ko woon benn instant couvre-feu nga nga nga ne waa kii waa Dakar nañ tëdd ak waa Thiès te généraliser woo yëpp pour man boo doon def couvre-feu da nga war a généraliser yëpp nga def na kii Dakar ak. région bi daal yëpp daal nga bañ a def ñiy bàyyi nen loolu amul solo pour man lii du couvre-feu pour man sama xalaat bu gàtt. lan nga gis ni moom def na couvre-feu vingt et ba pare élèves bu nu xëyee dañuy jàngi plus de ay cent élèves si benn classe lan voilà man loolu mooy sama problème boo defee couvre-feu kay da ngaa war a defaale tamit nga jël élèves bi tamit nga leen bu ñu jàngi ndax foofu noonu pour man boo amee comme luñ ne kii virus bi nii foofu lay gën a garaawee ndax foofu noonu dañuy gis par trois élèves des fois ñooy toog nii. d'accord nga si couvre-feu bi wala d'accord. man moom d'accord ma si wax dëgg neex yàlla. dañoo sonn si lalu bi toog tëj ñu tëj ñu te ñun suñu suñu suñu frères yi ak suñu yaay yi ak suñu papa yi ak ñun ñii dañoo yor ay doom te dañuy liggéey dañuy wàcc ay 22 heures ñu nar ñoo tëj ay couvre-feu 21 heures nga nar wàcc ay 20 di kurti kurti si yoon bi dafa metti léegi yow nan nga gisee euh, waa HLM ñi ngi génn di taal ay pono seen mbedd yi léegi euh, lan nga gisee loolu. parce que ñoom dañoo am fulla moo tax ñun ñi sax dañuy taal couvre-feu bi bu bu ñu kii bu ñu ko da bu ñu ko arrêté wul ñun dañuy taal. kañ kañ ngeen taal. dañ koy yëngal. suba. policiers yi ñu yëngal rek suba moom fii dina toj. suba pare ngeen pour yëngal. pare nañ fii dañuy taal suba dina jax ndax dañuy liggéey. Ah, si yow suba pare nga. pare naa pour lépp bu doon tay tay pare naa ma taal puno. boo mbokku internet Dakar yéen a ko déggandoo ah suba de. gars yi nii nii nii booy